gént attaayam ci jigéen bu nekk ci néegu sëy dinay firi wërsëg moo xam buñ buñ togg moo xam buñ toggul danay firi wërsëg ci jigéen bu nekk ci néegu sëy beneen bi da ngaa gént dee akolaat kenn ci sa sa ñaari waajur ku mu a doon ñëpp ñoo ko bokk sa papa la nga akolaat ko comme ku gis sa papa coppeen àgg wala sa yaay danay firi wërsëg bu yaatu incha allah ci ku ko gént gént gu baax a baax la baax la voilà euh, voilà jigéen boo xam ne dafa nekk ci néegu sëy ci règle yaa ci ngànt nga génn sa jëkkër di sëy ak yow ci biir ngànt danay firi wërsëg am na nag fu ñu ñëw foo xam ne bu baax mën ngeen di topp ci vidéo yi wax naa ne am na léeg-léeg dina ñëw nekk alal bu lewul bu ngeen toppee ci vidéo yi gis mais fii rek laa wax yaa ngi ci ngànt nga gént sa jëkkër ci am ak yow dana firi wërsëg góor gu gént di sëy ak yow ci ak sa soxna maanaam dama ne jigéen moo gént sa boroom kër di sëy ak yow mais bu dee góor moo gént di sëy ak moom ci ngànt wax naa ne baaxul ci gént yi bu ngeen toppee gént yi da ngeen ko allah gént ay statut wala ay xërëm insha allahu tabaraka wa mu ñëwaat ci laaj yi tuuti te dellusi yi voilà gént bi danga ko gisaatagul laaj yi ñoom moo bari <laughs> bu la gisu rek message mu whatsapp dégg nga ne man dinaa la tontu bu soobee yàlla te yow doo joxe 500 voilà Khady Faye gént ñu nga gént ku la tiire ku la tiire ay policiers jàpp ko baax na loolu sax bu fekkee xam nga ko nag laa bëgg wax bu dee xam nga ko bu dee xam nga ne kii diggu la moo la tiire bal fetal wala mu yor fetal tiire la ko dina firi wërsëg bu yaatu boo xam ne yéen ñaar dañu ko bokk wala business boo xam ne dañu ko seq yéen ñaar wala lu am solo loo xam ne dangay jógee ci kooku tiira la ñëw ci yow dana la amal njëriñ baax na lool bu doon bu dee nag koo xamul dañ ne fii nit koo xam ne dana la tooñ tooñ boo xam ne dana la yàq lu bari bu fekkee xam nga ko kon baax na boo ko xamul day xaw a tooy waar tuuti voilà yóbbu gént di jafe-jafe xat-xat ak naqar yu dañ ci yow la génn def rapport sexuel ak ki nga ki nga nekkal nag Fatima Diop demal ci page bi page YouTube bi dugal rek booy bind rek dina la indi lépp lu ay ci gént def rapport jotaay yëpp mu ngi foofu incha allah moom Fatou Diagne oustaz dama gént sama ex ñaan euh, mille koo xam ne da nekkoon ak moom fekkee dem na ba nekk amatul boo tuddee excès amatul ba jabaram di la ñaar mille francs comme ñu ngi ci néegu sëy bu la fekkee ci néegu sëy yow baaxul day koy xat-xat jafe-jafe ci sa sëy bu dee nekkoo ci nee néegu sëy nag baax na loolu sax dana firi xéewal ci nekk ci yoon di ñëw incha allah danañ ci dimbale say noonu voilà bu dee yaa ngi néegu sëy day firi xat-xat ak jafe-jafe ci sëy bi nga nekk voilà kunta ñaan oustaz lii dugg sama biir voilà bu fekkee li dugg sa gémmiñ yëg nga ne dafa ñaw ba bu dee yëg nga ne gaañ na la wala mu def loolu bu dee weñ na nag baax na lool sax bu dee dafa nekk weñ weñ weñ bi dugg ci sa gémmiñ baax na lool dafay firi kàttan ci yow dafay firi wér ci yow loolu yi mel ni yaa dagg moom baaxul dana firi noon bu la fitnaal wala bu lay laal mais bu dee weñ la moom baax na loolu weñ fi dugg ci sa yaram baax na bi solution suñu tontu naa la yow waaw kay maa ngi ñëwaat ci laaj yi incha allah voilà maa ngi toog woon ci gént yàpp bu ñor